laa ci mën a seere rek mooy mooy ku baax la te surtout Cheikh Ibra doon na dund ak Mbaye Fall muy liggéeyal Serigne Touba ba wàcc loolu moom yàlla nu yàlla taal ci baar képp la ci mën a te man ci ñi mujj bokkal ab liggéey laa bokk ci ndogoy Serigne am di ñu mujj andi am na photo bu ñu may yónnee démb ci YouTube bi noo bokkoon toog ca kër ga bi ñu a ndogo yi saa su ma saa ñëw maa ngi toogandoo ba ba ndogo yi jeex mu ñaanante mu yewe loolu doy na sëkk tàggatoo bu rafet yàlla na ko maam Cheikh Ibrahima teeru ak Serigne Touba ñu dugal ko àjjana te yàlla taas Cheikh Ibrahima Sall ñu ñoo bokkoon jenn daara bokk fu ñu jàngee xam bokk fu ñu tarbi yokk suñu fàll bokk benn néeg maa moom doomi suñu saa fàll ak saa jéem baax la juddoo waaye lii mayee la baax cërub yàlla def na ko mooy gërëm liggéey bi am ngërëm suñu fàll liggéey bu gërëm ko am na ngërëm suñu fàll mat naa sant yàlla baax ñu sant yàlla baax ñu sant borom dee nekk ci moom na fa lay jërëjëf sant Rafah TV abonné leen bu ngeen cliqué fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek